bëgg jokk mbokk ba tax na itam yaakaar naa ni loolu itam bokkoon na ci waraloon li wa daan waral ñu yëkkati seen doom jox seen mbokk mu yaral leen mais tey fi tey bopp sa bopp la tey kenn talul kenn bopp sa bopp talatuñu suñu bopp bay tal xale yi kon na talatuñu xale yi duñu leen yenduloo wala di leen yóbbu fenn njàngulu métier sax léegi c'est très rare soxna ma ne xale loolu société bi moo màgg hmm. bu njëkk ba xoolal xoolal Pikine fii Pikine fii ñu nekk nii tey xoolal Pikine tey fii fii fii fii Banlieue FM nekk. ay jamono da nga fiy taxaw. di seen saxaar otoraay bu daal jóge avant guy sedd la da ngay taxaw doo gis dara. lépp àll bu ñu yàmbal la nga. wallaay jamono ne boo demee kër goo dugg. ñetti néeg nga fay fekk et cetera bu ko defee dina neex a gérer. day dëgg la moom mais léegi jamono ji moo ubbeeku moo yaatu. bi mu ubbeekoo yaatu ba pare géew bi nekkatul kër gi waaye mbedd mi la kër gi dafa daal di xat. dugg kër gi dafay daal di xat léegi mbedd mi la. mu dem ba mbedd mi dafa daal di xat ñu ubbi frontière yi mu dem ba xoolal keppaar amatul télévision moo am yaa ngi dégg cest à dox ajandeel foo ñu nekk ko seulement ñun mesure d'accompagnement li ñu war a àndal ak jamono joojee li ñu war a àndoon ak am na kër yoo xam ne ma tey am na kër yoo xam ne boo fa dee ba tey mu boo demee kër ajandeel la am na fa noo xam ne xale am na loo boo demee allah kulli aldin boo xoolee ñaari fan boo fa ñett nga gis ni au moins am loo xam ne lii c'est c'est ndar ndar la daal loo xam ne xoromu ndel dëgg ma nga fa. Mhm. xam mais lu tax parce ay mag ñi comme ni dox mag ñi dañ fi daan baax. Mhm. xëy mag ñaa ngi dem lan mag ñi bàyyil comme ni nga xam ne daal la fi ñoom maam yi ko mhm. xam ne daanaka mag ñi dañuy teel a xëy na ah jamono doon na boo xam ne kenn ku nekk li wala ku su nekk saxatu ngem doy na la ba dem dugg soo jëlee bëgg dem ko ah, ay man maa ngi nangam jamono metti na kenn mënul toy yor kenn ñi ma yor sax su ma leen mën a wàññi wàññi leen donc conjoncture day daal di ñu dugg si tax ba pratiquement loolu bokk na si li nga xam dafay daal di biaiser éducation bi ah am ñoo xam ñu ba def si ñëw comme ni ma ko waxoon frontière lu ubbeeku léegi da nga daan toog fii xamoo sax luy xew Mauritanie <laughs> wala Thiès gi nag pour nga daan fa dem rek mais tey da ngay toog fii di xam jokkoo kan nekk Amérique di ko gisante moom nii yëf bu demee day dem ba kumpa amatoo si xale yi ko su kumpa amul nag maintenant pour nga yaraat xale bi il faut am beneen taxawaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la léegi li bi kër yi xatee frontière yi ubbeeku fépp ubbeeku tubaarkàlla man ma ngi fàttali biñu nekké nekkee fi pikine ma sha allah kër yëpp xamanté won xalé yi ñëpp ño daan and di fo mm-hmm. ñëpp ku nekk bo gisul doom sa doom rek ma nga kër diw ana diw ma nga kër diw ku nekk xam na fu doomam ne ku ne xam nga fo koy seeti mm-hmm. mais tey tubaarkàlla comme ni nga ko rek ni kër yi xaté mm-hmm. frontière yi ko réseaux sociaux yi ñew tay fi tay yar jafena yar jafe na jafe na jafe na jafe na waaye am na kër yi nga xamante ni ba tey ñu ngi ciy waslu àq même bu mel na démb ñu ngi ciy lu àq mm-hmm. di jéem góor góorlu ba mën a téye tuuti ci li fi màmbaay yi